booba yéesu jóge na dëkku nasaret ci diwaanu galile ñëw yax sóob ko ci dexu yurdaan bi muy génn ndox mi mu daldi gis asamaan xar te xelum yàlla di wàcc ci melow pitax ñëw ci moom te baat bu jóge asamaan jib ne yaa di sama doom ji ma bëgg ci yow laa ame bànneex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 te ànd ak day sant rab yi sax ñi di ko déggal noonu turam daldi siiw ci diwaanu galile gépp bi nga xamee ne génn nañu ci jàngu bi ñu ànd ak saak ak yowaana dem ci kër simon ak andre fekk gorob simon bu jigéen tëdd wopp ak yaram wu tàng ñu daldi ko yëgal yéesu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 ndax jànguleen la daawuda defoon ba mu amee soxla te xiif moom ak ñamu mu àndaloon xanaa yëguleen li amoon ci bisu abyataar saraxalekat bu mag bi ni daawuda dugge woon ca kër yàlla ga lekk mburu ya ñu jébbal yàlla jox ci it ña mu àndaloon fekk jaaduwul kenn lekk ko ku dul saraxalekat yéesu dellu ne leen yàlla sàkkul nit ngir bésu noflaay bi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 nit ki tàllal ko loxoom daldi wér te saasa nag farisiyen ya génn daldi gise ak ni far ak buur bi erod ngir fexe ko reylu ginnaaw loolu yeesu ak ay taalibeem jóge fa jëm dex ka fekk mbooloo mu mag mu jóge diiwaanu galile topp ko te bari dégg la mu def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 toma ak sak doomu alfe tàdde ak simon mi bokk ca mbooloo ma ñu tudde ni farlu ci moom seen réew ak yuda iskariyo mi nara wor yeesu am beneen bis yeesu ñëwaat ca kër ga te mbooloo mu bari dajalawaat fa ba tax mënuñoo lekk sax bi ko ay mbokkam déggee nag ñu ñëw ngir jàpp si ko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 ak sama jigéen ak sama Mark saar ñeent am beneen yoon Yeesu nekk ci wetu dex ga di jàngalewaat mbooloo mu bari dajaloo si ba tax mu yéeg ci gaal dugg ca dex ga mbooloo mépp taxaw ca tefes ga noonu yéesu daldi leen jàngal lu bari ci léeb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 waaye bijjant bi naaje mu lakk wow ndaxte amul ay reen leneen nag wadd ci biir ay xaaxaam xaaxaam yi daldi sax tànc ko te meñul dara li ci des dal ci suuf su baax mu jóg sax di focc ay gub lii antu ba mat fanweeri yoon lu ëpp la mu jiwoon liimat mat juróom benn fukk lii mat téeméer noonu yeesu ne leen diglu bu baax yow mi am ay nopp saar ñeent ay fukk ba ñaar fukk ginnaaw loolu ba yeesu nekkee fu wéet fukki taalibe ak ñaar ña ak ñeneen ñu daan ànd ak ñoom laaj ko ci mbirum léeb yi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 ba jariñ kii mat yoon lu ëpp lañu jiwoon kii mat juróom benn itam ndax nit dina jël làmp dëpp ci leget walla def ko ci ron ndax du ko wékk amul dara luy kumpa lu ñu warula siiwal mbaamu làqu te warul ne fànn déglul bu baax yow mi am ay nopp mu ne leen seet leen bu baax li ngeen di dégg des na leen nattal ak natt bi ngeen di nattale te dolli leen ku am des na la dollil ku amul li nga am as néew des na ko nangu Yeesu teg ci ne nguuru yàlla dafa mel ni nit ku ji tool muy nelaw walla muy xool guddi mbaa bëccëg jiw wi sax di màgg te xamul naka la ko defe suuf day meññ moom ci boppam mu sax focci defi gub bu gub yu ñoree nag mu dagg ko ndaxte ngóob jot na yeesu ne lu nu mën a méngaleel nguuru yàlla walla ban léeb lanu ko mën a misaale dafa mel ni doomu fuddën bi gën a tuuti ci jiwu yépp waaye boo ko jiwee day jóg màgg ba su gàncaxi tookar yépp mu sax ay banqaas yu rëy ba ci asamaan tàgg ci keram noonu yéesu dégtal leen yeneeni léeb yu bari yu mel ni yii di leen xamal kàddu gi aju ci lu ñu àttan daawu leen wax dara lul ciy léeb waaye bu wéetee ak ay taalibe daan na leen firil lépp bés booba nag ci ngoon yeesu ne taalibe yi nanu jàll dex gi mu yiwu mbooloo mi nag ay taalibeem jël ko ni mu mel ci gaal gi te yeneeni gaal ànd ak moom naka noona ngelaw lu mag daldi jóg duus yi sang gaal gi ba mu bëgg a fees fekk yeesu tëdd di nelaw ci ngegenaay ci taatu gaal gi taalibe yi daldi ko yee naan kilifa gi ndax sunu bakkan soxalu la ci kaw loolu yeesu jóg daldi gëdd ngelaw li ne dex gi noppil te dal noonu ngelaw li dal ba lépp ne nemm yéesu ne taalibe ya lu tax ngeen tiit ndax gëmaguleen ñu daldi ragal lool naan ci seen biir kii moo di kan ba ngelaw li ak dex gi sax di ko déggal Mark sar juróom noonu ñu jàll dex ga ba ter ci diiwaanu waa seresa bi yéesu génnee gaal gi nit ku rab jàpp jóge ca sëg ya daldi ñëw kar ko kooku nag ca sëg ya la dëkk te kenn mënu koo yeew du ak càlla la sax ndaxte ay yoon yu bari jéngoon nañu ko te yeew ko ak ay càlla la waaye waa ji daldi dagg càllale yi te damm jëng yi ba kenn amul woon kàttanu téye ko guddi ak bëccëg ma nga woon ca sëg ya ak ci tund ya di yuuxu te jam yaramam ak ay xeer bi mu gisee yeesu fu sori nag mu daldi daw si sukk fa kanamam di xaacu naan yow yeesu doomi yàlla aji kawe ji loo may fexeel ci turu yàlla bu ma mbugal ndaxte yeesu newoon na ko yow ràbb wu bon wi génnal ci nit ki noonu yéesu laaj ko noo tudd mu tontu ko coggal laa tudd ndaxte ñu bari lanu muy ñaan yéesu lool ngir mu bañ leen dàq ci réew ma fekk amoon na fa ca tund wa géttu mbaam xuux yu bari yuy for rab ya ñaan yeesu jox ñu ndigal ñu dugg mbaam xuux ya mu may leen ko noonu rab ya génn nit ka dugg mbaam xuux ya ñu daldi bartalu daanu ca dex ga lab fa mbaam xuux ya nag matoon nañu ñaari junni noonu sàmm ya daw ca dëkk ba ak ca àll ba nettali ji mbir mi ba nit ñi ñëw seetli xew ñu ñëw nag ci yéesu gis karab ya jàppoon toog sol ay yére te ànd ak sagoom ñu daldi ragal ña fekke woon mbir ma nag nettali leen mbirum nit ka ak mbaam xuux ya ci kaw loolu ñu daldi ñaan yéesu mu sori seen réew bi yeesu di dugg ci gaal gi ki rab ya jàppoon ñaan yeesu ngir ànd ak moom waaye yeesu mayu ko ko mu ne ko ñibbil ci say mbokk nettali leen ni la borom bi yërëme ba defal la lii lépp noonu waa ji dem ci diwaanu fukki dëkk yi daldi fa yégle la ko yéesu defal ba ñépp waaru noonu yeesu jàllaat dex ga taxaw ca tefes ga te nit ñu bari dajaloo wër ko kenn ci njiitu jàngu ba nag tudd yayrus ñëw ci moom naka la gis yéesu mu daanu ci tànkam di ko saraxu lu bari naan sama doom ju jigéen mi ngi bëgg a faatu kaay teg ko loxo ngir mu wérte dund noonu yeesu ànd ak moom bi muy dem mbooloo mu réy topp ko di ko tànc amoon na fa nag jigéen ju doon xëpp deret diiru fukki at ak ñaar sonnoon na lool ci loxooy fajkat yu bari sanq ci alalam jépp te jëlewu ci genn tan waaye faf wopp ja yokku noonu mu déggoon turu yeesu ne ci boppam su ma laalee ay yéreem rekk dinaa wér mu jaxasoo ak mbooloo mi nag doxe ko ginnaaw laal mbubbam ci saa si deret ji taxaw mu yëg ci yaramam ne jàngoroom deñ na yéesu yéeg ci saa si ne doole génn na ci moom mu wëlbatiku nag ne mbooloo mi ana laal sama yére ay taalibeem tontu ko xanaa gisuloo mbooloo mi lay wër ngay laaj ku ma laal waaye yeesu di xool li ko wër ngir gis ki ko def noonu jigéen ja ñëw daanu ci tànkam wax ko dëgg gépp mu tiit bay lox ndaxte xam na li xewoon ci yaramam yeesu ne ko soxna si sa ngëm faj na la demal ci jàmm te na sa jàngoro wàcc bi yeesu di wax nag am na ku jóge ca kër njiit la mu ñëw naan sa doom faatu na matatul nuy sonal kilifa gi waaye yeesu jàppul wax jooju mu ne njiit la gëmal rekk te bañ a tiit noonu yeesu dem ànd ak piyeer saak ak yowaane rekk ndaxte mayul keneen mu ànd ak moom naka lañu ñëw ci kër njiit li yéesu dégg coow li ñii di jooy ñii di yuuxu mu dugg ni leen lu ngeen di soow tey jooy janq bi deewul day nelaw rekk waaye ñu di ko ñaawal noonu yéesu génne ñépp woo bàyyi janq bi ak yaay ji ak ñi mu àndal dugg fa janq bi nekk mu jàpp loxoom ne ko talita kuumi lii tekki janq bi maa ngi la koy wax jógal ca saasa sa janq bi jóg daldi dox ndaxte amoon na fukki at ak ñaar ñépp daldi waaru ba ni jomm ci kaw loolu yeesu dénk leen bu wóor ñu bañ koo siiwal teg ca naa may leen njànq bi mu lekk mark sar juróom bi loolu amee yéesu jóge fa dellu réewam ànd ak taalibe yi bésu noflaay bi nag mu jàngal leen ci seen jàngu ba mbooloom ñi ko dégg waaru naan lii fu mu ko jële te xam-xam bii mu yor lu mu doon ba muy def kéemaan yi ndax kii du minise bi ndax du doomu maryaama te magu saak yuusufa yuda ak simon te ay rakkam yu jigéen ndax nekkuñu fii ak nun kon nag ñu daldi ko xeeb noonu yeesu ne leen des na fay dal yonent waaye du ci réewam ci mbokkam mbaa ci këram te yeesu mënu fa def ay kéemaan yu bari lu dul teg loxo yenn njarag wéral leen te mu waaru ndax seen ngëmadi bi loolu amee yéesu di war dëkk ya di jàngale noonu mu woo ci moom fukki taalibe ya ak ñaar joxleen sañ-sañu dàq rab yi yónni leen ñu ànd ñaar ñaar mu digal leen nii bu ngeen dem bu leen yóbbaale dara du mburu mbaa mbuus mbaa xaalis ci seeni maxtume waaye yem leen ci aw yet rekk sol leen ay dàll te yem ci benn turki mu ne leen kër gu ngeen dugg dal leen fa ba kere ngeen jóge dëkk ba koo xam ni gàntu na leen mbaa mu tangamlu leen génn leen fa yëlëb seen pëndu tànk ngir seede leen seen réer noonu taalibe yee dem di waare naan tuubleen seeni bàkkaar ñu daq ay rab yu bari te diw boppi jarak yu bari wéral leen noonu erod buur bi dégg loolu ndaxte turu yeesu siiwoon na mu ne nag yaxya dekki na moo tax mu ànd ak kàttanu def ay kéemaan ñeneen ni kii iliyas la ñi ci des ne yonent la bu mel ni yonent yu jëkk ya waaye bi ko erod déggee mu ne yaxya male ma daggalu boppam moom moo dekki fekk erod yónnee woon na jàpp yax ya yeew ko tëj ndaxte erod takkoon na erodiyaad jabaru filip magam te yaxya ne ko jaaduwul nga denc sa jabaru mag moo tax erodiyaad ëmbal ko mer ba bëggu ko rey waaye mënu koo def ndaxte erod dafa ragal ya ba sàmm bakkanam xam ni ku jublate sell bu ko daan déglu it day jaaxle lool teewul mu bég ci déglu ko noonu bis bu yelli ñëw ba erod doon màggal bisu juddoom mu woo ca xew wa ay jaraafam ak kilifaay xare ba ak njiiti diwaanu galile booba doomu erojaad dugg di fecc mu neex erod ak gan ñi ba buur bi ne janq bi laaj ma loo bëgg dinaa la ko jox mu booli ci ngiñ ne ko loo ma mën a laaj dinaa la ko jox ba ci genn wàllu réew mi sax noonu janq bi génn ne ndeyam lu may laaj mu tontu ko laajal bopp ya mu daldi gaawantoo dugg nag ci kanamu buur bi ne ko dama bëgg nga indil ma léegi bopp yaxe ci biir ndab bi ko buur ba déggee mu am naqar wu réy waaye bëgg koo gantu ndax ngiñ li ak gan yi mu daldi yónnee nag xarekat jox ko ndigal mu ndil ko bopp Yaxya waa ji dem dagg bopp Yaxya ca kaso ba indi bopp bi ci biir ndab jox ko janq bi mu daldi ko jox yaayam ba taalibe Yaxya déggee loolu ñu ñëw fab néew ba suul ko ci bàmmeel ginnaaw loolu ndaw yi dajaloo ci wetu yeesu nettali li ñu def ak li ñu jàngale lépp ci kaw loolu yeesu ne leen nanu beddeeku dem ci barab bu wéet ngeen noppalu fa tuuti waxoon na loolu ndaxte amoon na ñu bari ñu doon dem ak a dikk ba amuñu sax jot ngir lekk noonu ñu dugg ci gaal dem ci barab bu wéet bi ñuy dem nag am ñu leen gis xàmmi leen ñu daldi jóge ca dëkk yépp daw jiitu leen fa bi Yeesu génnee gaal gi mu gis mbooloo mu rëy yërëm leen ndaxte dañoo mel ni xar yu amul sàmm kon mu daldi leen jàngal lu bari ca ngoon sa taalibe yi ñëw ci moom ne ko fii àllub neen la te léegi mu guddi yiwil mbooloo mi nag ñu dugg ci àll bi ak dëkk yi nu wër jënd lu ñu lekk waaye yeesu tontu leen ne yéen jox leen leen lu ñu lekk ñu ne ko xanaa ñu jënd lu tollook peyu juróom ñetti weer ci mburu jox leen ñu lekk yéesu laaj leen ñaati mburu ngeen am dem leen seeti ñu dem seeti ne ko juróomi mburu ak ñaari jën noonu yéesu sant mbooloo mi ñu def ay géew toog ci ñax mu naat mi ñu toog nag ay géewi juróom fukk ak téeméer bi loolu amee yeesu jël juróomi mburu yi ak ñaari jën yi xool ci kaw sant yàlla ba noppi mu damm mburu yi jox ko taalibe yi ngir ñu seddale ko mbooloo mi ñaari jën yi it mu seddale ko ñépp noonu ñépp lekk ba suur te it ñu dajale la desoon ca damiti mburu ya ak jën ya mu nekk fukki pañe ak ñaar yu fees ñu lekkoon nag matoon na li mu juróomi junniy góor ci kaw loolu yeesu sant ay taalibeem ñu dugg ci gaal gi jàll ba batsayda bi mu yiwi mbooloo mi bi mu tàggatoo ak mbooloo mi mu yéeg ci tund wa ñaan fa yàlla noonu guddi jot fekk gaal gi nekk ci diggu dex gi te yeesu rekk moo nekk ca tefes ga booba mu gis taalibe yi sonn lool ci joow gi ndax li leen ngelaw li soflu ca jël nag mu jëm ci ñoom di dox ci kaw dex gi ba xaw leen a raw bi ñu ko gisee nag muy dox ci kaw dex gi ñu foog ni njuuma la daldi yuuxu ndaxte ñépp gis ko te jummi ci waaye mu wax ak ñoom ci saa si ne leen takk leen seen fit man la bu leen tiit noonu mu fekk si leen ci gaal gi ngelaw daldi ne tekk njàqare taalibe ya nag weesu dayoo ndaxte seen xool dafa fat ba réere mbir kéemaan gi yéesu defoon ci mburu yi bi nga xamee ni jàll nañu ba àgg diwaanu senesaret ñu teer fa génn ca gaal ga ci saa si nit ñi xàmmi ko ñu daldi daw ci diiwaan ba bépp te fépp fu ñu ko dégg ñu di ko indil ñu wopp tëdd ci seeni lal te fu mu mën a aw ci dëkk yu mag mbaa yu ndaw walla ci àll bi ñu ndil ko jarag yi ci pénc yi ñaan ko mu may leen ñu laal cati mbubbam rekk te képp ku ko laal daldi wér Mark saar juróom amoon na nag bés ay pharisien ak ay xutbakat yu jóge Yerusalem ñëw ci yéesu ñu gis yenn ci taalibeem di lekk fekk seeni loxo setul maanaam raxasuñu woon ni ko aada santaane pharisien yi nag ñoom ak yawut yi yépp dañuy topp aada yoon yi maam yi tëral te fande leen gën lekk ak loxo yu ñu raxasul te it bu ñu jógee pénc ma suñu sanguwul set duñu lekk am nañu it yeneen aada yu bari maanaam ni nga war a raxase ay kaas ay njaq ak ay satala ba ñu laab noonu farisiyen yi xutbakat ya laaj ko ne lu tax say taalibe duñu topp aaday yoon yi maam yi tëral waaye ñuy lekk ak loxo yu setul yeesu tontu leen esaayi waxoon na bu baax ci kàddug yàlla ci seen mbir yéen nafeq yi bi mu bindee xeet wi ñu ngi may teral ci seen gémmiñ waaye seen xol sori na ma seen màggal amul benn njariñ ci li ñuy jàngale dénkaane nit kese yéesu neeti leen dëddu ngeen ndigali yàlla jublu ci aaday nit mu teg ca ne leen xelu ngeen ci tebbi ndigali yàlla ngir sàmm seen aada ndaxte musaa nee na teralal sa ndey ak sa baay teg ca ne ku móolu sa yaay walla sa baay des na la rey waaye yéen dangeen ne ku ne sa yaay walla sa baay li nga war a jariñoo ci man korbaan la maanaam jébbal naa ko yàlla dootu leen ko bàyyi mu defal dara ndeyam walla baayam noonu tebbi ngeen kàddu yàlla ndax seen aada ji ngeen di donnante te it yéen a ngi def yeneen yu bon yu mel nii noonu Yeesu waxaat ak mbooloo mi ni leen yéen ñépp déglu leen ma te li ci biti tey dugg nit du ko mën a indil sobe waaye liy génn ci nit loolu mooy indil nit sobe bi nga xamee ni jóge nañu ci mbooloo mi dugg ci kër gi taalibe yi laaj yéesu mu firi leen wax ju làqu jooju yéesu tontu leen ne ndax yéen itam seen xool dafa tëju xanaa xamuleen ne dara lu jóge biti dugg ci nit du ko mën a indil sobe ndaxte du dugg ci xool waaye ci biiram lay jëm ba noppi daldi génn ca barab bu làqu ci li mu wax loolu yeesu daganal na bépp ñam yeesu ne leen yi li génn ci nit loolu mooy indil nit sobe ndaxte ci biir ci xolu nit la xalaat yu bon di jóge ak ndoxaanu yàqute càcc ak boom njaaloo ak bëgge coxor naafeq ñaawteef ñeetaan saaga reylu ak jëfi ndof lu bon loolu lépp day génn ci nit di ko indil sobe ginnaaw loolu yeesu jóge fa jëm dëkku tiir bi mu fa àggee mu dugg ci kër te bëggul kenn xam ko waaye jataayam mënula umpe amoon na fa nag jigéen ju rab jàpp doomam ju jigéen bi mu déggee ne yeesoo nga fa mu ñëw daanu ciy tànkam fekk jigéen ja ci xeetu grek la bokkoon juddoo wàlli finisi ci diiwaanu siri noonu jigéen ja ñaan ko mu dàq rab wi ci doomam waaye yeesu ne ko na gone yi jëkk a lekk ba regg fab ñamu gone yi sànni ko xaj yi rafetul jigéen ji tontu ko waaw sang bi teewul xaj yi di lekk ruusiit yi rot ci lekkukaayu gune yi ci kaw loolu yéesu ne ko ndax wax jooju demal ci jàmm rab ba génn na sa doom noonu mujj bi fekk doom ji tëdd cib lal te mucc ci rab wi bi loolu amee yéesu jóge na weti tiir jaar ci wàlli dëkku sidon dem dexu galile ba noppi dugg ci biir diiwaan bi ñuy wax fukki dëkk yi foofa ñu nil ko ku tëx te dër lool ñaan ko mu teg ko loxo noonu yéesu yóbbu ko ba ñu sori mbooloo mi mu def ay baaraamam ci noppam daldi tifli laal làmmiñam mu yërëm ko ba bind ci xolam xool ci asamaan daldi ne efata li tekki ubbiku leen ci saa si ay noppam daldi dégg te làmmiñam yiwiku muy wax bu leer bi mu ko defee yéesu tere leen ñu wax ko kenn waaye lu mu leen ko gën a tere ñu gën ko ne siiwale ñu waaru lool naan lépp lu mu def lu yéeme la may na sax tëx ñuy dégg ak lu ñuy wax Mark saar juróom te bés yooya mbooloo mu rëy amaatoon na te amuñu woon lu ñu lekk noonu yeesu taalibe ya ne leen yërëm naa mbooloo mi ndaxte toog nañu fi man ñetti fan te amatuñu lu ñu lekk su ma leen yiwee ak seen xiif dinañu tële ci yoon wi ndaxte am nañu jóge fu sori taalibe yi tontu ko waaye fii alub neen la fu ñuy jële lu doy ngir dundal leen yeesu laaj leen ñaata mburu ngeen am ñu ne ko juróom ñaar noonu sant mbooloo mi ñu toog ci suuf mu jël juróom ñaari mburu yi sant yàlla damu leen joxleen leen taalibe yi ngir ñu seddale leen mbooloo mi taalibe yi def ko amoon na fa it tuuti jën yu ndaw yéesu jël ko sant yàlla wax taalibe yi ñu seddale leen itam mbooloo mi noonu nit ñi lekk ba suur ba noppi taalibe yi dajale juróom ñaari dàmba yu fees ak dàmmit yi ci des ña ko fekke nag matoon nañu ñeenti junniy góor bi ko yéesu defee mu yiwi leen daldi dugg ak taalibe ye ca gaal ga dem ci wàlli dalmanuta noonu farisiyen yi ñëw di werante ak moom ñu fexe koo fiir ba laaj ko kéemaan gu jóge ci asamaan tey firndeel yonentam waaye yeesu bind ci xolam ne leen lu tax nit jamono ji di laaj kéemaan ci dëgg maa ngi leen koy wax duñ jot genn kéemaan ci kaw loolu yéesu bàyyi leen duggaat ci gaal gi di jàll dex gi taalibe yi nag fàttewoon woon nañoo yóbbaale mburu te amuñu woon lu dul benn mburu ci gaal gi noonu yeesu artu leen ne wattu leen te moytu lawiru farisiyen yi ak ñi far ak buur bi erod taalibe yi nag daldi werante naan nun di indiwaale wuñ mburu waaye yéesu yëg loolu ne leen lu tax ngeen di werante ci li ngeen indiwaalewul mburu xanaa gisagu leen te xamu leen ndax seen xool dafa fatt ba tey ndax ay gumbaay njàccaar ngeen te seeni nopp naqari xanaa leen bi ma demee juróomi mburu ya ngir juróomi junni ña ñaata pañe yu fees ak ay damit ngeen ca dajale woon ñu tontu ko fukk ak ñaar yeesu neeti leen te bis bi ma demee juróom ñaari mburu yi ngir ñeenti junni ñi ñaati dàmba yu fees ak damit ngeen dajale woon ñu ne ko juróom ñaar noonu yeesu ne leen ndax seen xool dafa tëju ba tey ginnaaw loolu ñu ñëw ci batsayda foofa ñu indil yeesu gumba di ko ñaan mu laal ko yéesu nag jàpp loxo gumba gi yóbbu ko ba génn dëkk bi mu def tiflit ci bëtam teg ko loxo naan ndax gis nga dara waa ji xool ne ko gis naa ay nit ñu mel ni ay garab te ñu ngi dox kon yéesu laalaat bët yi gumba gi ni xefeet daldi ba gis lépp bu leer ci kaw loolu yeesu sant ko mu ñibbi ne ko bul dugg ca dëkk ba bi loolu amee yeesu ànd ak ay taalibeem dem ci dëkk yi wër sesaare bu filip bi ñuy dem nag mu laaj taalibe yi nit ñi lu ñu wax ni man moom laa ñu ne ko am na ñuy ne yaa di yaxya ñeneen ne iliyaas ñi ci des ne yaay kenn ci yonent yi noonu yéesu laaj leen yéen nag ku ngeen wax ni moom la piyeer tontu ko yaa di almasi bi ci kaw loolu yéesu dénk leen bu wóor ñu bañ koo wax kenn booba yeesu tàmbale na leen xamal ne doomu nit fi war naa sonn lu bari njiit ya saraxalekat yu mag ya ak xutbakat ya dëdd ko ñu rey ko mu dekk ci ñetti fan noonu mu xamal leen mbir mi ba mu leer nàññ bi ko piyeer déggee mu woo ko ci pegg daldi ko yedd waaye gestu gis yeneen taalibe mu daldi yedd piyeer ne ko sori ma seytaane yëfi nit ngay fonk waaye du yëfi yàlla noonu yeesu woo taalibe yi ak mbooloo mi ni leen ku bëgg a topp ci samay tànk na bàyyi boppam te gàddu bant bi ñu ko war a daaj door a topp ci man ndaxte koo xam ne bëgg nga rawale sa bakkan dinga ko ñàkk waaye ku ñàkk sa bakkan ngir man ak ngir xabaar bu baax bi dinga ko jotaat ndaxte moom àddina sépp lu mu jariñ nit bu ñàkkee bakkanam te nit lu mu war a weccee bakkanam ku ma sa faral te nanguwul samay wax ci kanamu niti jamono jii ñi fecc seen kóllëre ak yàlla te topp bàkkaar doomu nit ki dina la rus bés bu ñëwee ci ndamu baayam ànd ak malaaka yu sell yi Mark saar juróom mu ne leenati ci dëgg maa ngi leen koy wax am na ñi fi taxaw ñoo xam ne duñu dee te gisuñu nguuru yàlla ñëw ak doole juróom benni fan ginnaaw gi yeesu àndoon na ak piyeer saak ak yowaana mu yóbbu ñoom rekk fu wéet ci tund wu kawe lool foofa jëmmam soppeeku ci seen kanam ay yéreem di rayi rayi weex tàll te fóotkatu àddina mënuleen a weexale nii noonu ñu gis yonent yàlla iliyaas ak musa di wax ak yéesu piyeer daldi ne yeesu gi bëgg nañu ci suñu teew fii nanu defar ñetti mbaar benn yow benn musaa ak benn iliyaas fekk xamul li muy wax ndaxte tiitaange jàpp na leen ñoom ñett ñépp noonu niir móor te baat jibe ca niir wa naan kii mooy sama doom ji ma bëgg ci moom laa amee bànneex déglu leen ko ci saase taalibe yu xool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 lu tax xutbakat yi di naan Elias moo war a jëkk a ñëw Yeesu ne leen waaw Elias dina jëkk a ñëw jubanti lépp waaye itam lu tax bind nañu ne doomu nit ki war naa sonn lu bari ñu xeeb ko dëdd ko waaye maa ngi leen di wax ne Elias ñëw na te def nañu ko la leen neex ni ko mbind mi waxe bi nga xamee ne yeesu ñëw na ba jege taalibe yi mu gis mbooloo mu bari wër leen te ay xutbakat di werante ak ñoom naka la mbooloo mi gis yéesu ñu waaru daldi daw nuyu ko noonu yéesu laaj leen ci lan ngeen di werante ak ñoom kenn ci mbooloo mi tontu ko ne kilifa gi rab jàpp na sama doom ba luuloo ko saa su ko jàppee daf koy daaneel ci suuf gémmiñ gi di fuur mu yeyu ne jàdd ñaan naa say taalibe ñu dàq ko waaye mënuñu ko yeesu ne leen yéen niti jamono jii yéen ñi di ba kañ laa war a nekk ak yéen ba kañ laa leen war a muñal indil leen ma xale bi ñu indil ko ko bi xale bi gisee yéesu nag rab wi sayloo ko ci saa si mu daanu ci suuf di xalangu gémmiñ giy fuur yéesu laaj baay bi lii kañ la ko dal baay bi ne ko li dale ci nguneem léeg-léeg rab wi bëmax ko ci safara léeg-léeg mu bëmax ko ci ndox ngir rey ko soo ko manee yërëm nu te xettali nu tontu ko nga ni soo ko manee ku gëm man na lépp ci saa si bàyyu xale bi wax ci kaw naan gëm naa dàqal ma sama ngëma ngëmadi yéesu gis nag ne mbooloo maa ngi daw wërsi ko mu daldi gëdd rab wi nag ne ko génnal ci moom yow rab wu luu te tëx te bu ko jàppaat wax naa la ko noonu rab wi daldi yuuxu sayloo xale bi génn xale bi ne nemm mel ni ku dee ba tax ñu bari ne dee na waaye yéesu jàpp loxoom jógloo ko xale bi daldi taxaw bi yeesu duggee ci kër gi taalibe laaj ko ci pegg lu tax mënuñu ko won dàq yéesu tontu leen ne yu mel ni yii ñaant yàlla rekk a leen di dàq bi loolu amee ñu jóge fa jaar ci diiwaanu galile yéesu bëggul kenn yëg ko ndaxte muy jàngal taalibe yi ne leen dees na jébbal doomu nit ki ci loxo loxoy nit te dinañu ko rey mu dekk ci ñetti fan waaye taalibe xamuñu lu wax joojuy tekki te ñimuñu ko ko laaj bi nga xamee ne àgg nañu dëkku kaparnayum te dugg ca kër gi yéesu laaj leen ne lu ngeen doon waxante ci yoon wi waaye ñu ne cell ndaxte ñu nga fa doon werante ba xam ku gën a màgg ci ñoom noonu yéesu toog woo fukki taalibe yi ak ñaar ni leen ku bëgg a jiitu na topp ci ginnaaw ñépp te nekk surgaab ñépp bi ko yéesu waxee mu jël xale indi ko ci biir géew gi ba noppi leewu ko naan ku nangu xale bu mel ni bii ci sama tur man mi nga nangu te ku ma nangu du man mi sax nga nangu waaye ki ma yónni bi loolu amee yowaane ne ko kilifa gi danoo gis nit kuy dàq ay rab ci sa tur ñu tere ko ko ndax li mu bokkul ci nun waaye Yeesu tontu ko bu leen ko tere ndaxte kenn mënula def kemaan ci sama tur ba noppi di ma xarab ku nu far na ak nun ci dëgg maa ngi leen koy wax koo xam ni kii may na leen kaasu ndox rekk ndax yéen a ngi bokk ci man kirist kooku du ñàkk yoolam mukk waaye ku yóbbee bàkkaar kenn ci ñi gën a tuuti ñi ma gëm li ci moom moo di ñu takk doj wu rëy ci baatam sànni ko ci géej boo xamee ni sa loxo mi ngi lay yóbbe bàkkaar dagg ko ndaxte ñàkk loxo te tàbbi ci dund gu wóor gi moo gën ci yow nga am ñaari loxo te tàbbi safara su dul fey mukk te bu la sa tànk di yóbbe bàkkaar dagg ko nga lafañ te tàbbi ci dund gu wóor gi moo gën nga am ñaari tànk ñu sànni la ci safara te bu la sa bët di yóbbe bàkkaar luqi ko nga pat te dugg ci nguuru yàlla moo gën ci yow nga am ñaari bët ñu sànni la ci safara foofa sax yi duñu dee mukk te safara sa du fey ñépp safara lañu leen di xorome xorom lu baax la waaye bu sàppee nañ lañu koy delloo cafkaam am leen xorom te ngeen jàmmoo ginnaaw loolu yéesu jóge fa dem ca wàllu réewu yawut yi ya ca ginnaaw dexu yurdaan bi mu fa demee mbooloo mu bari ñëw fi moom yéesu daldi leen jàngal ni mu ko daan defe noonu ay farisiyen ñëw ci moom lalal ko fiir ñu laaj ko ndax jaadu na nit fase jabaram yéesu tontu leen ne lu leen yoonu musaa sant ñu ne ko musaa maye na nit bind kayitu pase tàggook jabaram waaye yeesu ne leen dénkaane boobu mu leen bindal bind na ko ndax seen xol dafa fatt waaye ca njaalbeen ga yàlla sàkk na leen kii góor kii jigéen moo tax góor dina beru ndeyam ak baayam di taq ci jabaram ñoom ñaar doon benn kon nekkatuñu ñaar waaye benn lu yàlla tàkk nag bu ko nit tas bi ñu delloo ca kër ga nag taalibe laaj ko ci mbirum loolu noonu yéesu ne leen ku fase sa jabar takk jeneen njaaloo nga di tooñ ku jëkk ka te jigéen ji tas sëyaat ak keneen njaaloo nga bi loolu wéyee ñu ndil yeesu ay xale ngir mu teg leen ay loxoom waaye taalibe ya gëdd nit ñi bi ko yeesu gisee nag mu metti ko lool mu ni leen bàyyi leen xale yi ñu ñëw fi man bu leen leen tere ndaxte ñu mel ni ñoom ñoo yelloo nguuru yàlla ci dëgg maa ngi leen koy wax ku woyful ni xale nangu nguuru yàlla doo ci mën a dugg noonu yeesu leewu leen teg leen ay loxoom barkeel leen ginnaaw loolu bi yeesu nekkee ci kaw yoon wi di dem am ku daw sukk ci kanamam ne ko kilifa gu baax gi lu ma war a def ngir am wàll ci dund gu jeex gi yeesu tontu ko lu tax nga wooye ma ku baax ki yàlla rekk a baax xam nga ndigal yi bul boom bul njaaloo bul sàcc bul seede lu dul dëgg bul nangu alalu jàmbur teralal sa ndey ak sa baay waa ji ne ko kilifa gi loolu lépp sàmm naa ko li dale ci sama ndaw ba tey noonu yeesu xool ko am cofeel ci moom mu ne ko lenn rekk moo la dese demal jaay li nga am may ko miskin yi te dinga woomle ci asamaan boo noppee nga ñëw topp ci man waaye ci wax jooju xar kanamam lëndëm mu jóge fa ak tiis ndaxte ku bari woon alal la noonu yeesu xool taalibe yi ko wër ne leen boroom alal dugg ci nguur yàlla lu jafee wax jooju nag daldi jaaxal taalibe yi lool waaye yeesu neeti leen samay xarit dugg ci nguuru yàlla lu jafe ngoogu giléem jaar ci bën bënu puso moo gën a yomb boroom alal dugg ci nguuru yàlla wax jooju gën a teye jaaxal taalibe ya ñu naan ci seen biir kon nag ku mën a mucc noonu yeesu xool leen naan loolu tëna nit waaye tëwul yàlla yàlla mën na lépp ci kaw loolu piyeer daldi ko ne nun dey dëddu nañu lépp te topp la yeesu tontu ko ci dëgg dëgg maa ngi la koy wax képp ku dëddu kër doomu ndey yu góor walla yu jigéen ndey walla baay doom walla suuf ndax man ak xabaar bu baax bi dinga am tey ji téeméeri yoon ay kër doomi ndey yu góor ak yu jigéen ndey doom ak suuf ñoom ak ay fitnaay noon te ëllëg nga am dund gu jeex waaye ñu bari ci ñi jiitu ñooy mujj ñi mujj ñooy jiitu ji ginnaaw loolu ñu ànd jëm Yerusalem yéesu jiitu taalibe yi am njàqare te ñi ci topp tiit noonu yeesu woowaat fukk ak ñaar ña ci wet xamal leen li nar a xew ci mbiram mu ne leen noo ngi dem yerusalem te des na jébbal doomi nit ki ci loxoy saraxalekat yu mag ya ak xutbakat ya dinañu ko àtte teg ko dee jébbal ko ñi dul yawut ñu ñaawal ko tifli ci kawam dóor ko ay yar rey ko waaye ginnaaw ñetti fan dina dekki ginnaaw loolu saak ak yowaana doomi sebede ñëw ci yeesu ñu ne ko kilifa gi danoo bëggoon nga may nu li ñu lay ñaan yeesu tontu leen lu ngeen bëggoon ma may leen ko ñu ne ko bés boo soloo sa ndam nga may nu ñu toog kii ci sa ndijoor kii ci sa càmmooñ waaye yeesu tontu leen xamuleen li ngeen di ñaan ndax man ngeen naan kaasu naqar bi may naan ndax man ngeen a sóobu ci metit yi ma nara a sóobu ñu ne ko waaw man nanu ko noonu yeesu ne leen ngeen naan kaasu naqar bi may naan tey sóobu ci metit yi ma nar a sóobu waaye toog ci sama ndejoor mbaa sama càmmoñ du man maa koy maye ñi ñi ko waajal rekk ko yelloo bi nga xamee ni fukki taalibe ya ca des dégg nañu loolu ñu daldi mere saak ak yowaana waaye yeesu woo leen naan xam ngeen ne ci xeeti àddina ñi ñu teg njiit dañu leen di dóor yetu nguur te kilifa yi di leen noot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 ànd ak taalibe yi ak mbooloo mu xaw a bari am gumba gu tudd bartime liy tekki doomu time toog ci wetu yoon wi di yalwaan noonu mu dégg ne yeesu nasaret moo fay romb mu daldi yuuxu naan yërëm ma yow setu bi ci kaw loolu ñu bari gëdd ko ngir mu noppi teewul mu gën a naan yërëm ma noonu yéesu taxaw daldi ne woo leen ko ñu woo nag gumba gi ne ko na sa xel dal jógal mi ngi lay woo bi mu ko déggee mu sànni malaanam ne bërét dem ci yeesu yeesu ne ko loo bëggan ma defal la ko gumba gi tontu ko kilifa gi dama bëgg a gis noonu yeesu ne ko demal ci jàmm sa ngëm faj na la ci saa si gumba gi gis daldi topp yéesu ci yoon wi mark saar benn ginnaaw loolu yeesu ak taalibe ya jege nañu ba agsi dëkki betfase ak betani ci wetu tund oliw noonu yeesu yebal ñaar ci leen demleen ci dëkk bi ci kanam bu ngeen fa duggee dingeen fa gis cumbur gu kenn musula war yibi leen ko indi bu leen kenn nee lu ngeen di def tontu leen ko borom bi da koo soxla te léegi mu delloosi ko taalibe ya dem nag ñu gis cumbur ga ci mbedd mi mu yeewe ci buntu kër bi ñu ko yiwi nag am na ca ña fa taxaw ñu ne leen lu ngeen nar bàyyiwu ci mbur gi taalibe yi tontu leen ni leen yéesu digale woon kon nit ñi bàyyi leen ñu dem ñu indi ci mbur gi yéesu nag lal ci seeni yéere mu toog ci ñu bari lal seeni yéere ci yoon wi ñenn ñi dagg ay cari garab ci tool yi lal leen nit ci yoon wi ñiy jiitu ak ñiy topp ci yeesu ñépp di wax ci kaw naan hosaana yow mi ñëw ci turu borom bi ku barkeel nga nguuru sunu maam daawuda gi ñëw dina barkeel ci barab yu gën a kawe nañu ne hosaana noonu yéesu dugg yerusalem dem kër yàlla ga xool lépp ba noppi génn dem dëkku betani moom ak fukki taalibe yi ak ñaar ndaxte dafa guddi bët set ñu génn betani fekk yéesu xiif noonu mu seen fu sore garabu figg gu sëq mu dem seeti ndax am na ay doom waaye bi mu fa àggee gisul lu dul ay xob ndaxte jamono figg duggagul ci kaw loolu mu ne garab gi dootuloo meññ mukk taalibe yi dégg loolu mu wax bi ñu àggee yerusalem yeesu dugg ci kër yàlla gi daldi dàq ñi fay jaay ak ñi fay jënd mu daaneel taabali weccikatu xaalis yi ak tooguy jaaykati pitax yi te mayul kenn mu yóbbu am njaay ci kër yàlla gi mu di leen jàngal ne leen ndax waxuñu ci mbind mi des na wooye sama kër këru ñaan ci yàlla ngir xeet yépp waaye yéen def ngeen ko këru sàcc bi ko saraxalekat yu mag yi ak xutbakat ya déggee nag ñu ragal ko ndaxte mbooloo mépp dañoo waaru ci njàngaleem noonu ñu seet pexem reylu ko bitim timis jotee yéesu ak taalibe yi génn dëkk bi ci suba si bi ñuy dem ñu gis ne garabu figg gi dee na ba wow koŋ noonu piyeer fàttaliku li xewoon ne yéesu kilifa gi xoolal figg gi nga rëbb dee na ba wow yeesu tontu ne gëm leen yàlla ci dëgg maa ngi leen koy wax ku ne tund wële jógal tàbbi ca géej ga te nga gëm ni loolu dina am bañ cee boole xel ñaar kon sa ñaan nangu moo tax maa ngi leen koy wax bu ngeen di ñaan yàlla lépp lu ngeen ko mën a laaj gëm leen ni jot ngeen ko te dingeen ko am te it bu ngeen di ñaan fekk ngeen jàppal kenn dara baal leen ko ngir seen baay bi ci kaw baal leen seeni tooñ yéen itam ñu duggaat yerusalem te yeesu doon doxantu ca ëttu kër yàlla ga noonu saraxalekat yu mag ya ak xutbakat ya ak njiit ya dab ko ne ko yëf yi ngay def ci ban sañsañ nga koy defee te ku la may sañ-sañu def ko yeesu tontu leen man itam dinaa leen laaj lenn bu ngeen ma ci tontoo kon dinaa leen wax ci ban sañ-sañ laay defe yëf yi la yaxya daan def di soob nit ñi ci ndox fu mu ko jële ci yàlla walla ci nit ñi bi ñu ko déggee ñuy werante ci seen biir naan bu nu nee ci yàlla kon dinañu laaj lu tax gëmu leen ko kon waaye bu nu nee ci nit ñi kon mbooloo mi dal ci suñu kaw ndaxte ñépp teg nañu yaxya ab yonent ñu tontu yéesu nag ne loolu de xamuñu ko noonu yéesu ne leen kon man itam duma leen wax ci ban sañsañ lay defe yëf yii Mark saar ñaar. noonu yeesu daldi leen wax ci léeb mu ne leen amoon na fi nit ku jëmbat toolu reseñ mu ñag bi gaspax ngir nal ci reseñ yi tabax wattukaay ba noppi batale ko ay beykat daldi tukki bi tool bi ñoree nag mu yónni surga ci ñoom ngir jot wàllam ci meññeef gi waaye ñu jàpp ko dóor ko ay yar dàq ko mu dellu ak loxoy neen mu yónniwaat beneen surga waaye ñu dóor ko ci bopp toroxal ko mu yónneeti beneen surga ñu rey ko mu yónne ñeneen ñu bari ñii ñu dóor leen ñii ñu rey noonu mu dese ko kenn rekk di doomam ji mu bëgg mujj mu yónni ko naan xej na ñu wekk sama doom waaye baykat yi daldi ne ci seen biir kii moo wara a doon tool bi nan ko rey moom ndono li ñu jàpp ko nag rey sànni ci biti noonu yéesu laaj leen boroom tool bi nag lu muy def xanaa ñëw rey beykat ya dénk tool ba ñeneen ndax mosu leen a jàng wax ji ci mbind mi doj bi tabaxkat yi sànni mujj na di doju koñ ci boroom bi la loolu jóge te yéemu nanu ci noonu kilifa yi di wut pexeem jàpp ko ndaxte xam nañu ne ñoom lay wax waaye ragal nañu mbooloo mi ba ñu bàyyi ko fa dem bi loolu amee ñu yónni ci yeesu ay pharisiens ak ñu far ak buur bi erod ngir fiir ko ci waxam ñu ñëw ci moom nag ne ko kilifa gi xam nañu ne ku wóor nga te ragaloo kenn ndaxte seetuloo jëmmi nit waaye dangay xamle yoonu yàlla ci bu wóor wax nu ndax jaadu na nu fay buur bi sesaar galak am déet nu fay ko walla nu bañ koo fay waaye yéesu xam na seen naafeq mu ne leen lu tax ngeen bëgg maa fiir indi leen ma posetu denaariyoo ma seet ñu jox ko poset bi noonu yéesu laaj leen kan lañu ci def nataalam ak turam ñu tontu ko sesaar noonu yéesu ne leen jox leen nag sesaar li sesaar moom te jox yàlla li yàlla moom ñu daldi waaru ci mbiram ginaaw loolu ay sadusiyen ñëw ci moom ngir laaj ko lenn sadusiyen yi nag gëmuñu ne ndekkite am na ñu ne ko kilifa gi musaa bindal nañu ne ku magam faatu te bàyyiwul doom ak jabaram kooku war naa donn jigéen ji ba yëkkati giiru magam amoon na fi nag juróom ñaari góor ñu bokk ndey ak baay taaw ba takk jabar faatu te bàyyiwul doom ñaareel bi takk jigéen ja faatu moom itam te bàyyiwul doom ñetteel ba it noonu mbir mi dem na nag ba juróom ñaar ñooñu ñépp dem te kenn bàyyiwu fi doom mujj jigéen ja faatu moom itam ci ndekkiteli nag kan ci ñoom moo ko war a donn fekk ku nekk ci juróom ñaar ñi mas na koo takk yéesu tontu leen ne mbaadu dangeen a nekk ci réer ci li ngeen xamul mbind mi mbaa kàttanu yàlla ndaxte keroog ndekkite li kenn du am jabar kenn du am jëkkër waaye dinañu mel ni malaaka yi ci kaw te sax li jëm ci mbirum ndekkite xanaa jàngu leen lii yàlla wax ci tawreetu muusaa ci saarum ngarab si maa yàllaay Ibrahima Isaaxa ak ba li ci gën mooy nekkul yàllaay ñi dee waaye yàllaay ñiy dund la kon bu ngeen ci réer bi ñuy werante benn xutbakat ñëw dégg seen waxtaan gis na Yeesu tontu na leen tontu lu leer mu laaj ko nag ci ndigal yi ban moo ci gën a màgg noonu yeesu tontu ko ne bii bànni israyil déglul yàlla sunu boroom moom rekk mooy buur kon nanga bëgg yàlla sa boroom ak sa xol bépp ak sa bakkan bépp sa xel mépp ak sa kàttan gépp te ñaareel bi lii la nanga bëgg sa moroom ni nga bëgge sa bopp ndigal yi ñoo sut yépp xutbakat bi ne ko waaw kilifa gi li nga wax dëgg la yàlla kenn la te amul jeneen yàlla judul moom te nga bëgg ko ak sa xol bépp ak sa xel mépp ak sa kàttan gépp moo dàq bépp sarax bu ñu yóbbu ngir màggal yàlla ak bu ñuy lakk ca saraxalukaay ba bi yeesu gisee nag ne tontu na ak xel mu ne ko soriwuloo nguuru yàlla bi mu waxee loolu kenn ñimetu koo laaj dara bi nga xamee ne yéesu ma nga doon jàngale ca kër yàlla ga mu laaj nit ñi lu tax xutbakat yi di wax ne almasi bi mooy sëtu daawuda daawuda moom wax na ci kàttanu xel mu sell mi naan boroom bi nee na sama boroom toogal ci sama ndeyjoor ba kera may daaneel say noon ci sa kanam gannaaw daawuda nag wooye na ko borom bi naka mu nekke sëtam noonu mbooloo mu mag mi di ko déglu ak bànneex bi yéesu di jàngale nag mu ne leen moytu leen xutbakat yi dañoo bëgg di doxantu sol ay mbubb yu rëy te ñépp di leen nuyoo ñaari loxo ci pénc mi ci jàngu yi féete kanam lañuy wut te toogu yu yiw lañuy taamu ci reeri xew yi ñu ngi lekk alalu jigéen ñi seen jëkkër faatu di ñaan yàlla ay ñaani ngistal yu gudd seen mbugal dina gën a tar noonu yéesu toog ca kër yàlla ga janoog ndab yi ñuy def sarax ngir yàlla muy xool nit ñi cey dugal seen xaalis am nag ay boroom alal yu ci di def xaalis bu bari gannaaw ga daal benn jigéen ju jëkkëram faatu te mu ñàkk ñëw def ci ñaari poseti xànjar yu matul sax dërëm bi ko yéesu gisee mu woo taalibe yi ne leen ci dëgg maa ngi leen koy wax li jigéen ju ñàkk jee dugal ci defukaay ya moo ëpp maanaa alalu ñeneen ñi ñépp ñoom ñépp dañoo sàkku ci seen barile waaye moom dafa sàkku ci néewleem ba far koo joxe lépp toog Mark saar ñett bi yéesu di jóge ca kër yàlla ga kenn ca taalibe ya ne ko kilifa gi xoolal ni mu réye ay doj te rafete ni ay taax waaye yeesu tontu leen du gis ngeen taax yu rëy yii yépp lii lépp dina daanu ba doj dootul des ci kaw doj ginnaaw loolu bi nga xamee ni yeesu toog na ci tund olivier jàkkaarloo kër yàlla ga pierre saak yowaan ak andré fekk ko ci wet laaj ko wax nu kañ la loolu di am te luy tegtal ne mbir yi yépp a ngi bëgg a mat noonu yeesu tontu leen moytu leen bu leen kenn nax ñu bari dinañu ñëw ci sama tur naan moom laa te dinañu nax ñu bari bu ngeen déggee ay xare ak coowi xare watu leen tiit loolu war naa am waaye mujjug jamono ji jotagul xeet dina jóg xeex ak weneen xeet réew xeex ak meneen réew te yëngu-yënguy suuf dina am ci barab yu bari ak ay xiif loolu lépp mooy ndorteel metit yi mel ni jigéen juy matu moytu leen des na leen jébbal àttekat ya di leen dóor ay yar ca jàngu ya dinañu leen dëj ci kanamu ay boroom réew ak ay buur ndax sama tur ngir ngeen nekk seede ci ñoom faw xabaar bu baax bi jëkk jib ci xeet yépp saa su ñu leen jàppee nag dañ leen ci pencum layoo bu leen jàq ci li ngeen war a wax li ngeen jot ca waxtu woowa wax leen ko ndaxte du yéenay wax waaye xel mu sell mi mag dina joxe rakkam ci dee baay joxe doomam ay doom it dinañu jóg di bañ seeni waajur di leen reylu te ñépp dinañu leen bañ ndax sama tur waaye ku muñ ba ca mujj ga mucc bés baa ngi ñëw bu li ñuy wax lu araam luy yàqe tege ce berab bu mu yelloowul kiy jàng na xam bu ngeen gisee loolu nag ku nekk ci biir diwaanu yudde nanga daw ca tund ya ku nekk ci kaw taax mi bul wàcc ngir dugg ci kër gi fab sa yëf ya fa nekk ku nekk ci tool bi bul ñibbi ngir fab sa mbubb nga la jigéen ñi ëmb ca bés yooya nga la it ñiy nàmpal ñaan leen ngir seen gàddaay bañ a tase ak jamonoy seddaayu lool li ndaxte booba dina am mitit wu rëy wu a am ba àddina sa sosoo ak tey te dootul am mukk te bu fekkul woon borom bi wàññi bés yooyu kenn du mucc waaye fekk na mu wàññi leen ndax gaayam ñi mu tànn booba nag bu leen kenn waxee kaay leen gis kirist a ngi fii mbaa leen mu nga fale bu leen ko gëm ndaxte ñi mbubboo turu kirist ak ñi mbubboo turu yonent dinañu feeñ di joxe ay firnde yu rëy ak ay kéemaan ba ci nax sax ñi yàlla tànn su loolu mënoon a am wax naa leen ko lu jiitu kon nag moytu leen waaye booba ginnaaw mitit yooyu jant bi dina lëndëm te weer dootul leer biddiw yi di daanoo asamaan te kàttani asamaan yi yëngu noonu des na gis doomu nit ki ñëw ci niir yi ànd ak kàttan ak ndam lu réy dina yónni ay malaakaam ñu dajale ñi mu tànn ci ñeenti xeble yi fa àddina dale ba fa asamaan yem yéesu teg ca ne jàng leen misaalu garabu figg ga boo xamee ni ay banqaasam duy nañu tey xawam sëq xam ngeen ni nawet jege na noonu itam bu ngeen gisee loolu lépp xew xam ni jege na mu ngi ci bunt bi sax ci dëgg maa ngi leen koy wax nit yi jamono ji du duñu wéy te loolu lépp amul asamaan ak suuf dinañu wéy waaye samay wax du wéy mukk waaye bés boobu ak waxtu woowu kenn xamul kañ lay doon du malaaka yi ci kaw du sax doom ji waaye baay bi rekk moo ko xam moytu leen te xool xamuleen kañ la waxtu wi di jot mu ngi mel ni nit ku tukki mu dénk këram ay surgaam ku nekk ak sa sas te sant bëkk néeg bi mu xool yéen nag xool leen ndaxte xamuleen kañ la boroom kër gi di dellusi muy ci timis mbaa ci xaaju guddi muy ci fajar mbaa njël bu ne jaleñ bu mu leen bett ngeen di nelaw li ma leen wax ñépp laa ko wax xoolleen leen Mark booba nag saraxalekat yu mag ya ak xutbakat ya ñu ngi doon fexeel Yeesu ngir jàpp ko reylu fekk booba ñaari fana des ci màggalu bésu jéggi ba ak màggalu mburu ya amul lawiir kon nag ñu ne bu doon ci bisu màggal bi ngir yëngu-yëngu bañ a am ci nit ñi bi nga xamee ni yeesu nekkoon na dëkku betani mu dem këru simon ma gaana woon di fa lekk noonu jigéen ñëw yor njaq lu ñu defare doj wu tudd njaq li def la koloñ ju ñuy wax naar tey jar lu bare bari jigéen ji toj njaq li tuur boppu yeesu waaye amoon na fa ñu mer di xultu seen biir naan yàq gi lu muy jariñ mëneesoon na jaay laj koloñ ji ci lu tolloog peyug atum lëmm jox ko miskin yi noonu ñu daldi gëdd jigéen ji waaye yeesu ne leen bàyyi leen ko defal na ma jëf ju rafet lu tax ngeen di ko sonal miskin yaa ngi ak yéen bis bu nekk te man ngeen leen a dimbali saa su leen neexee waaye du ngeen ma gis ba faw jigéen ji def na li mu man diw na sama yaram ak laj koleñ ngir waajal sama rob laata moo jot ci dëgg maa ngi leen koy wax fépp fu ñu yéene xabaar bu baax bi ci àddina sépp dinañu fa fàttali it li jigéen jiy def ca waxtu woowu kenn ci fukki taalibe yi ak ñaar ku tudd yuda iskariyo dem ca saraxalekat yu mag ya ngir wori yeesu bi ñu ko déggee ñu am ca bànneex bu rëy dig ko xaalis noonu mu fexee jamono ju mu leen mën a jébbal yéesu bés bu jëkk ca màggal ga ñuy wax mburu ya amul la wiir taalibe yéesu laaj ko foo bëgg ñu defaral la reeru jéggi bi bés bu jëkk booba nag mooy bés ba ñu faral la rendi xaru màggalu jéggi ba noonu yéesu yebal ñaar ci taalibe yi ni leen demleen ca dëkk ba foofa góor gu yenu njaq lu def ndox dina taseeg yeen ngeen topp ko kër gi mu dugg nag ngeen ni boroom kër gi kilifa gi nee na ana néegu gan bi may lekkee reeru jéggi bi man ak samay taalibe dina leen woon néeg bu féete kaw te yaa ñu defar ko ba lépp jekk foofa ngeen nuy defarale reer bi bi mu ko waxee taalibe ya dem ca dëkk ba gis lépp ni leen ko yeesu waxe woon noonu ñu defar reer bi bi nga xamee ne timis jot na yéesu ñëw ànd ak fukki taalibe yi ak ñaar ñu toog di lekk bi ñuy lekk nag yéesu ne leen ci dëgg maa ngi leen koy wax kenn ci yéen ku bokk ak man di lekk sax dina ma wor taalibe yi nag am naqar ñu daldi ko ne kenn kenn mbaa du man mu tontu leen kenn ci yéen fukk ak ñaar la kuy cappandoo ak man ci ndab li doomu nit ki mu ngi dem ni ñu ko waxe ci mbind mi waaye ki koy wor dina torox bañoon a juddu moo gën ci moom noonu bi ñuy lekk yeesu jël mburu sant yàlla jox leen ko naan jël leen lii sama yaram la ginnaaw loolu mu jël kaas sant yàlla jox leen ko ñépp naan ci mu ne leen lii sama deret la ji fas kóllëre gi te mu tuuru ngir ñu bari ci dëgg maa ngi leen koy wax dootuma naan gannaaw tey ndoxum reseñ mii ba kera ma ci naan bu bees ci nguuru yàlla noonu ñu woy yàlla ba noppi génn dem ci tundu olivier booba yeesu ne leen yéen ñépp dingeen ma dàggeeku ndaxte bind nañu dinaa dóor sàmm bi xari jur gi tasaaroo waaye bu ma dekkee dina leen jiitu ji galile kon piyeer ne ko bu la ñépp dàggeekoo man duma la bàyyi mukk waaye yeesu tontu ko ci dëgg maa ngi la koy wax guddik tey balaa genaara sab ñaari yoon dinga ma weddi ñetti yoon waaye piyeer gën a sax ci la mu waxoon naan boo xamee ni sax dama war a dee ak yow duma la di mukk taalibe yépp it waxe noonu noonu ñu dem ci barab bu tudd setsemaane yeesu ne taalibe yi toog leen fii ma dem ñaani mu ànd ak piyeer saak ak yowaana daldi jàq ba xonet mu ni leen sama xool dafa tiis ba ma bëgg a dee toog leen fii xool noonu yéesu dem ci kanam tuuti daanu ci suuf di ñaan ne waxtu wi teggi ko bu loolu mënoon a am mu ne abba baay bi yow mi dara tëwul teggil ma kaasu naqar bii moona bu mu doon sama coobare waaye na sa coobare am noonu mu dellusi ci taalibe yi fekk ñuy nelaw mu ne piyeer simon danga nelaw amuloo sax doolay xoolandoo ak man benn waxtu xool te ñaan ngir bañ a daanu ci fiir seen xol jag na waaye seen bind woyof beneen yoon yéesu dem di ñaane noonu dellusiwaat fekk leen ñuy nelaw ndaxte seeni bët dañoo diis xamuñu lu ñu koy tontoo ñetteelu yoon mu dellusi ci ñoom ne leen yéen a ngi nelaw tey noppalu ba tey jeex na waxtu wi jot na ñu ngi wor doomu nit ki ci loxooy bàkkaarkat yi jógleen ñu dem ki may wor a ngi nii di ñëw bi yeesu di wax yudaa mi bokkoon ci fukki taalibe ya ak ñaar agsi ànd ak mbooloo mu bari mu jóge ca saraxalekat yu mag ya ca xutbakat ya ak ca njiiti xeet wa te gànnaayoo yi ak yet fekk ki ko naroon a joxoon na leen tegtal ne leen ki may fóon moom la jàpp leen ko yóbbu ko te wattu ko bu baax noonu mu ñëw ci yeesu ne ko kilifa gi daldi ko fóon bi mu ko defee nit ñu song yéesu nag jàpp ko waaye kenn ci ñi fa taxaw bocc jaaseem dóor surgaab saraxalekat bu mag bi nopp bi dagg yéesu ne leen jóg ngeen ngir jàpp ma gànnaayoo jaasi ak yet mel na ñuy topp sàcc mën a daan naa toog bés bu nekk ca kër yàlla ga di jàngale te jàppuleen ma waaye lii am na ngir mbind mi am ci kaw loolu ñépp dëddu ko daw fekk amoon na ca waxambaane wu lëkkaayoo woon sër topp yeesu ñu daldi ko jàpp waaye waxambaane ma wacc fa sër bi daldi daw def yaramu neen ñu jàpp yeesu yóbbu ko ci saraxalekat bu mag bi te foofa la saraxalekat yu mag yi njiit yi ak xutbakat yi yépp dajaloo piyeer nag topp ko fu sori ba ci ëttu saraxalekat bu mag bi mu toog fa ak alkaati yi di jaaru ci taal bi noonu saraxalekat yu mag yi ak kuréelu attekat yi yépp di wut ku mën a seede lu daan yéesu ba ñu man koo reylu waaye gisuñu kenn teewul sax naa feq ñu bari ñëw seede ci yéesu lu dul dëgg waaye seen seede ànduñu ba mujj naa naafeq taxaw seede ci moom naan nun daal dégg nañu mu ne dinaa toj kër yàlla gii loxo nit liggéey tabax ci ñetti fan geneen gu nit liggéeyul waaye ba tey seeni wax ànduñu ci kaw loolu saraxalekat bu mag bi taxaw ci seen kanam ne yéesu doo tontu lu la nit ñi di jiiñ waaye yeesu tontuwul dara ne cell saraxalekat bu mag bi dellu nag ne ko ndax yaa di almasi bi doomu yàlla ju tedd ji yeesu tontu ko moom laa te dingeen gis doomu nit ki toog ci ndajeeru aji kàttan ji di ñëw ci niiri asamaan bi ko saraxalekat bu mag bi déggee nag mu daldi mer ba xotti ay yéreem naan weddi na yàlla lu nu doyati seede lu ngeen ci xalaat noonu ñépp teg ko dee ci kaw loolu ñu daldi tifli ci moom takk ay bëtam di ko dóor ay kurfeñ naan ko yow wax nu ci kàddug yàlla ku la dóor ba noppi alkaati yi teeru ko ak ay pes piyeer nag ma nga toogoon ci ëtt bi féete suuf noonu benn mbindaanu saraxalekat bu mag ba romb fa mu gis piyeer di jaaru xool ko jàkk naan yow itam àndoon nga ak yeesu nasaret moomu waaye piyeer weddi ko naan xawma li ngay wax dégguma ci dara mu daldi génn dem ci buntu kër ga foofa nag mbindaan mi gisaat ko mu ni ña fa taxaw waa ji ci ñoom la bokk waaye piyeer weddiwaat ko nees tuuti ña fa taxaw ne piyeer yow mii de ci lu wóor bokk nga ci nde waa galile nga waaye piyeer daldi giñ ko naan xawma nit ki ngay wax ci saa si ginaar sab ñaareelu yoon noonu piyeer fàttaliku li ko yéesu wax balaa ginaar a sab yoon dinga ma ñetti yoon mu daldi jooy jooy ci suba teel saraxalekat yu mag yi gise ñoom ak njiit yi ak xutbakat yi ak kuréelu attekat yi yépp ñu yeew nag yéesu daldi ko yóbbu jébbal ko pilaat noonu pilaat laaj ko ndax yaa di buur yawut yi yeesu tontu ko wax nga ko te saraxalekat yu mag yi di ko jiiñ lu bare kon nag pilaat laajaat ko déggal lépp luñ lay jiiñ xanaa amoo ci tont waaye ba tey yéesu tontuwul dara ba tax pilaat waaru màggal gu nekk nag pilaat daana may mbooloo mi ñu tànn kenn ci ñi ñu tëjoon mu bàyyi leen ko fekk booba amoon na ku ñu tëj tudd barabaas ku bokk ci ñi bëggoon a tas réew mi boole ci rey nit noonu mbooloo mi ñëw laaj pilaat mu defal leen la mu daan def pilaat nag xam ne kiñaan rekk a toxoon saraxalekat yu mag yi jébbal ko yeesu kon mu ne mbooloo mi xanaa ma bàyyi leen buur yawut yi waaye saraxalekat yu mag yi xiir mbooloo mi ñu laaj pilaat mu bàyyi leen barabaas kon pilaat ni leen lan lay def nag ak ki ngeen di wooye buur yawut yi ñu daldi yuuxuwaat naan daaj ko ci bant ba mu dee pilaat ni leen lu tax gantooñ la def waaye mbooloo mi di yuuxu bu gën a kawe daaj ko ci bant noonu pilaat mi wuta neex mbooloo mi bàyyi leen barabaas ba noppi mu dóorlu yeesu ay yar jébbal ko ngir ñu daaj ko ci bant bi loolu amee ñu dugal yéesu ci biir kër boroom réew ma mooy barab bu ñuy wax prétorium ñu daldi woo mbooloom xarekat yépp noonu ñu solal ko mbubb mu xonq cur ràbb kaalaak dég teg ko ci boppam ñu daldi ko wax bu kawe nuyu nanu la yow buur yawut yi ñu di ko dóor ci bopp ak bant di ko tifli daldi sukk màggal ko bi ñu ko ñaawalee noonu ba noppi ñu summi mbubb mu xonq mi solaatal ko ay yéreem yóbbu ko ngir daaj ko ci bant amoon na nag nit ku dëkk sireen tudd simon di baayu aleksandar ak fekk booba mu romb fa jóge ca wet ga féete ak tool ya ñu gàkko ngir mu gàddu bant bi noonu ñu yóbbu yéesu ca barab ba ñuy wax golgota li tekki barabu kaangu bopp ñu bëgg ko jox biiñ bu ñu boole ak naan gu tudd miir waaye nanguwu ko foofa ñu daaj yeesu ci bant daldi seddoo ay yéreem tegoo ko ay bant ba xam ku nekk looy am booba fekk yoor yoor di jot mbind mi xamle lu tax ñu rey ko nee na kii mooy buur yawut yi booba it ñu daajaale ak moom ñaari taskati réew mi kenn ci ndejooram ki ci des ci càmmoñam ña fa doon romb di ko xas di wëcc seen bopp ndax sib ko naan waaw kay yow mi bëgg a toj kër yàlla gi tabaxaat ko ci ñetti fan wàccal ci bant bi te musal sa bopp noonu saraxalekat yu mag yi ak xutbakat yi di ko ñaawal ci seen biir naan kii musal na ñeen waaye mënula musal boppam almasi bii di buur Israël na wàcc léegi ci bant bi nu gis ko tegam ñi ñu daajaale ak moom it di ko xarab li tàmbalee digg bëccëg ba ci tisbaar réew mépp lëndëm ci tisbaar nag yeesu woote kàddu dëgër naan elowi elowi lama sabaktani liy tekki sama yàlla sama yàlla lu tax nga dëdduma ñenn ci ña fa taxaw nag bi ñu ko déggee ñu ne mu ngi woo yonent yàlla Ilias noonu kenn daw jël aw sagar capp ko ci bineegar mu teg ko ci bant jox ko ko mu muucu mu ne bàyyileen nu seet ba xam Ilias dina ñëw wàcce ko noonu yéesu wootewaat ak kàddu gu dëgër delloo ruwaam yàlla bi mu ko defee rido barab bu sell ba ca kër yàlla ga xar ñaar li dale ci kaw ba ci suuf njiitu xare nag bi taxawoon ci kanamu yéesu bi mu gisee ni yéesu deye mu ne ci dëgg nit kii doomu yàlla la amoon na fa nag ay jigéen ñu leen dànd di xool xamee nañu ci maryaama mi dëkk magdala maryaama yaayu saak mu ndaw ak yuusufa ak salome bi yeesu nekkee galile jigéen ñooñu ñoo ko doon topp di ko toppatoo amoon na fa it yeneen jigéen yu bari yu àndoon ak moom ba ñëw Yerusalem booba nag bésu waajal la woon maanaam bés bu jiitu bésu noflaay bi ca ngoon sa nag yusufa mi dëkk aremate takkaaw fitam dem ca pilaat laaj ko néewu yeesu yuusufa moomu nag ku siiw la woon ci kuréelu àttekat yi te doon séentu moom itam nguuru yàlla bi pilaat déggee ne faatu na xaat mu waaru mu woolu nag njiit li laaj ko ndax yàgg na faatu bi ko ko njiit li dëggalee pilaat jox néew bi yusufa jënd càngaay wàcce néew bi ko ci dugal ko ci bàmmeel bu ñu yet ci xeer bi mu ko defee mu bërëng aw doj ubbe ko buntu bàmmeel bi maryaama magdala nag ak maryaama yaayu yusufa xool fu mu ko denc mark saar fukk ak juróom benn bi bésu noflaay bi wéyee maryaama magdala maryaama yaayu saak ak salome jënd cuuraay ngir dem xeeñal neewu yeesu kon bis bu jëkk ci ayu bés gi ñu njëlu dem ca bàmmeel ba di laajante ku nuy bërëngal doj wiy ub bàmmeel bi doj wowu nag bu réy réy la woon noonu ñu xool gis ne doj wa deñ na ñu dugg ci bàmmeel bi gis ca ndeyjoor waxambaane wusul mbubb mu weex ñu daldi tiit waaye mu ne leen bu leen tiit yéen a ngi seet yeesu nasaret mi ñu daajoon ci bant bi nekkatu fi dekki na gis leen fi ñu ko tëraloon kon nag dem leen ne piyeer ak taalibe ya mi ngi leen di jiitu galile foofa ngeen koy gisee ni mu leen ko waxe woon noonu jigéen ñi génn dawe bàmmeel ba tiit bay lox te waxuñu kenn dara ndax seen tiit bi yéesu dekkee nag ci subateel ca bés bu jëkk ca ayu bés ga mu jëkk feeñu maryaama mu dëkk magdala mi mu dàqe woon juróom ñaari rab maryaama nag dem nettali ko ñi àndoon ak yéesu fekk ñuy naqarlu di jooy bi ñu déggee ne yéesoo ngi dund te maryaama gis na ko gëmuñu ko ginnaaw loolu yéesu feeñu ñaar ci ñoom ci jeneen jëmm ñuy jaar ci yoon wi jëm àll ba ñu wuññi ko nag wax ko ña ca des waaye ba tey gëmuñu leen ñoom it ginnaaw ga it yéesu feeñu fukki taalibe yi ak benn bi ñuy lekk mu yedd leen ndax seen ngëmadi ak seen dëgër bopp ci li ñu bañ a gëm ñi ko gisoon bi mu dekkee mu ne leen demleen ci àddina sépp yëgal xabaar bu baax bi windeef yépp ku gëm te ñu sóob ko ci ndox dina mucc ku gëmul des na ko daan ñi ma gëm dinañu ànd ak firnde yii ci sama tur dinañu dàq rab yi di wax làkk yu bees di jàpp jaan ak seeni loxo te bu ñu naanee lu ñu tooke du leen wàññi dara te jarak yu ñu teg loxo mu wér gannaaw bi borom bi Yeesu waxee ak ñoom mu yëkkatiku dem asamaan toog ci ndeyjooru yàlla taalibe yi dem waare ji te loxo borom bi ànd ak ñoom di dëggal kàddu gi ak firnde yi ci ànd